di génnee naan damay créer ay video di ma tuumaal naan ti góor lan ma fekk ak nangam nangam coow li bëri Sénégal barki Serigne Babacar Sy ne woon naa ko ba amul problème wala nga gaaw a dee lu ma la wax waxti bu ko gëm man doomu séeréer laa kenn du dugg samay mbir. sëñ Bada mi nga xam ne nii chaque jour dama daan yéene ay kaso di ma yéene ay kii nekk sama jabar di wax di wax mi ngi ci kaso bi ñi ma yéene woon lu bon lépp ñi ngi ci kaso bi nee naa leen doomu séeréer laa man Selbé yi sama yaay yi man la Adama Bos tey Negri billaahi dina gën a yàgg ca kaso ba du génn sëñ Bada tamit dana fa dee ak keneen ak keneen kuy dugg ci aadama di ko toj rek Sokono SRS moo ci des dee leen xool fii ak fan ñoom ñëppay la ma soobee yàlla.